bonsoir bu leen di fàtte abonné ci sama seen youtube bi lien bi muy ci tiktok tey damay ñëw ci Moussa ñaxate mu nekk almaañ mu nekk club Mayence mu nekk fa capitaine mu nekk fa ndaanaan mu nekk défenseur moom Moussa ñaxate mu football nag espoir bu France moom Moussa ñaxate ñu bokkoo ko ak France moom nag am na amour ci équipe nationale bu Sénégal bëgg na footballal équipe national bu Sénégal déclaré nag moom du xaar ñu woo ko walla du xaar ñu wax si moom mais moom pare na pour ñëw footballal équipe national bu Sénégal Aliou Cissé nag jeune joueur yu mel nii dañu baax ci équipe bu Sénégal ndax soxla nañ ñu mel ni comme Moussa ñaxate bu ñëwee am na lu muy apporter équipe national bu Sénégal ndax euh, ndaanal la euh, football na France ci espoir yi. pare nak pour footballal équipe nationale bu Sénégal kon Aliou Cissé demal nga wo xalé bi demal nga waxtaan ak bi mun ko wo mu renforcer défense bi ndax foko tek ci défense dina ko football amna talent amna qualité amna vivacité défenseur bu mun duggal té te bañkat la doomu gaynde du touti kon Aliou Cissé demal nga wool ñu xalé bi mu ñëw footballal équipe nationale bu Sénégal mom lañ leen lon tey ci vendredi mu nekk si dossier Moussa Niakhaté mu am amour lool ci équipe nationale bu Sénégal man la Alseyni ana Moutaye Sport